doon dem Colobane 65 la moom moom yaraax mooy itinéraire ah. am quoi ama bon bi ma déparé Kounoune ay midi ñëw ba fii nii magasin fii si passerelle bi am client bu ma demandé arrêt bon ma taxaw di ko waaje quoi bon bi ma taxawee di ko waaje nii man dama jege-jege rek gis ñaari ponkali taxaw sama kanam waaw daal di camoufler quoi xam mm-hmm. yor ay xeer. bu mhm. si nekk ñaari yaa ngi téye ñaari xeer sa loxo. Mhm. daal may saaga saaga moom ndey affaire yooyu. Mhm. fekk oto baa ngi taxaw client bi wàññi. léegi ma gis beneen gàncax bi yor cocktail bi. cocktail ma la toog nii ma mais maa ngi gis mu ngi tàkk quoi. mu ngi def flamme. xam nga bi client bi wàccee rek moom si la sa sànni si biir oto bi. ah moom moo ko sànni waaw moom moom moom moo ko sànni quoi gisoo sama tànk bi nii sax. dégg oh. si la ma dal quoi. dama ko sànni. bi ma ko saan nag affaire bi kalaate bi affaire bi kalaatee man ma daal di foncé si tàkk-tàkk noonu daal di résister ba génn quoi ma génn nag client yi ku nekk di xool noo def ak foo jaar pour génn xam nga bon ñu ci yeneen yi daal di pincé porte bi xëcc porte bi mu dajeegu mhm. ñu daal dugg si biir oto bi mhm. ñu jël fi ay sac ak ay te tam mhm. portable bon bi falaam bi gën a am doole nag si leen wàcc ñoom ñëpp ay sept personnes yooyu six. waaw ah, ñoom ñëpp duggoon ci oto waaw ñoom ñëpp ay six personnes sept mais xam naa ne ñii da doon agressé ay bandi lañ waaw ay sàcc lan ay ñii ay bandi lan ñii hmm. ay bandi international la hmm. waaw ndax yenn gestes yi ko mën di ko def hmm. kii bandi la day rey ni maanaam rey nit ñi pour jël seen alal am na euh, ñi ngi fort ci yooyu ba ñu ne dafa am ñaar ci ñaar waaw waaw am na ñaari am na ñaari décédé quoi ay góor lañ wala ay jigéen non leen a ndax bon seen melokaan ni ñu ni ñu mel mënoo xam kii góor la mënoo xam kii jigéen la danoo lakk boo xam comme ni oto bi mel ñoom noonu mel mënoo xam daal image bi ngay gis rek xam ne ñii maanaam da ngay xool xam ne ñii ay nit lañ quoi waaw. Hmm. mais mais mais mais bëggoon nañoo xam exactement est-ce que profité pour daw génn lan moo tax nit ñi profité wala yéen da ngeen a tëjoon. non non porte yi tëjuwul. tëjuwul déggoo li ma la wax moom bi ñoom bi ñu sànnee cocktail bi si hmm. ñoo dajji porte derrière bi ñoom. ñaari ponkal yi. Hmm. ñoo xëcc porte bi mu dajee ko. dugg si biir oto bi. commencé jël téléphone yi ak yi. léegi nag si la ñi di ñoom it di profité ñi ñi mën a jaar si fenêtre yi jaar si fenêtre yi ñi mën a jaar si porte yi daal di njëkkanteeg tàkk-tàkk bi njëkkanteeg tàkk-tàkk bi am na ay blessés yu métti gars yi évacué na leen hôpital xam nga bon voilà si daal noonu la demee ñu si ñàkk seen bakkan nag xam nga leen jaale seen i mbokk hmm. sapeur yóbbu na leen mais mënoo xam ba am kii góor la mënoo xam jigéen la. en tant que sénégalais en tant que sénégalais tey ban message parce que li ko xool xam ne nii dafa ñaaw. non lii kay waxuma la ñaaw lii sa waay weesu na ñaaw. ku ma ku mën a attan na ku attan na jàkkaarloog ay sénégalais comme yow attan jël luy rey nit di leen ko sànni kooku weesu na ñaaw ñu xam ne fii dëkk bi ñun moom lañ am. ndax autorités yi. jot nañ fi ñëw waaw ministre ñëw na fii hmm. ministre ñëw na fi. waa de waa direction AFTI ñëw na. waa Sétit ñëw na ñi nga xamante ni ñoom ñoo am bu tataay mm-hmm. ñëw na mm-hmm. ñoom ñëpp ñëw na ah mm-hmm. su nekk tamit ministre de l'intérieur wax na nee lii ah. affaire terrorisme la affaire ah. banditisme la léegi na ñu ko def di leen def tout pour teg leen loxo waaw ah wax bi wax ju ñaar leen daal di jaale seen i mbokk boo xam ne ñun Sénégal moom an sa receveur moom boobu moom moom it génn moom dara dara bi la jaar na mais tànk bi moo am benn tànk-tànk rek lan mooy sa message lan mooy sa dernier message. waaw xanaa ñu xam ne ñun Sénégal ñoo ko moom. Mhm. ñun Sénégal ñoo ko moom buñ ko yàqee suñu bopp dañuy yàqal gars yi nañ delloosiwaat suñuy xel te xam ne àdduna lii jaru ko fi àdduna lii ko fi muy Macky Sall muy Sonko. Mhm. ñëpp ak ku mu mën a doon ñun Sénégal la ñu am buñ ko yàqee suñu bopp dañuy yàqal kon gars yi nañ delloosiwaat suñuy xel te xam dëkk bii ñun ñëpp ñoo fi bokk yem ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk bàyyi. nan dem liggéeyi nga bàyyi caaxaan yi lii ay caaxaan la jël alalu jàmbur di rey ay doomu aadama ngir lan yow sa intérêt bopp jaru ko fi na gars yi delloo si xel yi te xam ne adduna bi jeex na ba pare lii dafa metti lii dafa ñaaw oto bi c'est des centaines de millions lay jar hmm. nga taal ko nii waxuma la dara nga faataale si ay doomu aadama lu ko fi jar si yow lang say am hmm. téléphone yéen fi jël wala xaalis bi xaalis jël si oto bi lu mu leen di jëlee féete fenn hmm. ñu dem ji ay ponkal yoo xamante ne toll na ni Balla Gaye wala Tyson wala dem liggéey ñafe yi di kar oto di sànni ay ay cocktail toog di jaxase nit ñi di jël seen alal bi dem. mais ñoom naka lañ ñëwee ci oto bi danoo baare woon tali bi wala. non baare ko oto dafa taxaw rek ñu daat daw. bala koy jouer film quoi jékki-jékki rek encercler oto bi. toll nu leen neex gars yi doo leen mën sax gis seen image ay bët doo ngay gis. seen ah, bët kese ngay gis danoo kagule ko. waaw ñoom dara seen bët kese ngay gis. Hmm. waaw. mais bu ñu waxee da nga xam ne ñii ah ñu ngi wax ñaa ndax ñu xam ne ñii ay Sénégal la. ay Sénégal la ñu lay saaga ndey dafa noonu ndeyam am affaire yooyu mais man résisté wu ma quoi. mais bi leen gisee sa première réaction lan la. non man affaire dafa ma bett xam nga yow miy dem te foogoo. Mhm. bàyyiwul xelam. Mhm. mu sóoraale woo ko quoi. Mhm. loo jàkkaarlool muy ñëw di nga xam yow ni nga mën a def mais ki nga xamante yow da ngaa taxaw jékki-jékki rek. gars yi wël sa oto def la nii encerclé la xamoo fu ñu jógee loolu man man man looloo ma jaaxal ndax man ñaari gars yi bu ñu taxawee sama kanam yor ay xeer man tam man waa ñii nii def nii ñii fu ñu jógee. yow dañuy foog. waaw waaw man comprendre lu ma quoi. ak ni ñu nii ma jékki-jékki benn gars bi xàcc saaga ma man ñii caaxaanu après gars bi wàcc rek sa waay sa client bi wàcc rek sa waay sànni affaire bi bi mu ko sànnee rek xam nga ko sànni bi kalaate nag. tàkk tàkk bi commencé jóg man affaire bi xaw essence lan siy def man comprendre uma mais da koo sànni rek affaire bi explose si biir oto bi commencé def flamme nag ñoom ñu profité dugg jël liñ fi man a jël léegi flamme bi gën a am doole nag ñoom ñu wàcc maa leen di seen ñuy yëg ñuy yëg si passerelle bi dem man maa leen di seen ñuy dox ndànk bi dem mel ni ku deful daal boobu xanaa takk der yi newuñu boobu kenn daa nekk fii ama affaire bi flamme bi gën a am doole gars yoo xam naa woote sapeur ñu daal leen koy signaler si kaw ñu ñëw mais boobu c'est trop tard. waaw xam nga. fekk na boobu booba waaw. tàkk na boobu noonu muy ñëw di fay oto bi. boobu fekk na tàkk-tàkk bi wàññeeku na ñu si war a décédé décédé doon. macha allah sapeur ñëw xam nga évacuer blessé yi yóbbu la gendarmerie ñëw police ñëw autorité yëpp ñëw na ah. macha lii nan si jóg quoi Sénégal nan jóg si lii ndax lii mënu jëm kër quoi mm-hmm. bi moom mënu lii mënu si nekk quoi mm-hmm. waaw macha allah am benn problème ñu ngi lay jaajëf jërëjëf jaajëf ayca jërëjëf mbokk yi euh, nga xam taal ko euh, ba am ci ñaar ñoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan am ci loolu ñoo xamante ni am nañ ci ay gaañu gaañu yu euh, ba fi ñu waxee yow ñu nga ca l'hôpital lii daal li nga xamante ni depuis démb bi nga ni euh, kooku di Ousmane ko mandat de li moo xew Sénégal seen gis mën a déplacé bis ngi ci noonu di dem mooy li nga xam ne moo xew fii ci Yaraax Euh, day na waar démb daal ni ngeen ko jàngatee depuis démb doon na loo xamante ni lii la askanu Ndakaaru Njaay di dund lii la askanu Sénégal di dund taal yàq toj waaye a yamoon client jóge Tëngéej euh, ko fii ci li chauffeur bi wax ay sàmba boo dawale ko taal bis bi ba am ci te daa yamoon ay client ba fees am ci ñoo xamante ñaar ñoo xam safara si moo nañ lakk ba ñu jeex ndeysaan ñu na saw di leen jaale seen i mbokk waaye ba fii ñuy wax ni xamaguñu ñooñu nga xam ñooñu faatu xamaguñu seen eh, mënaguñu leen identifier ñu daal di ba ci kanam. aywa. dañ ko xëy gis ngeen gaa yaa ngi noonu ñu dem def ay pexe. mën fee jëlee bus bi. am bus bi ci ban ban ressortissant Waalo waaw xam naa du ñàkk dinañ euh, waxtaan ak ñi fi taxaw ngir ñu mën a xam euh, yëf yi naka la demee